bëri pexeek tànk bu gudd ak barke xooleek alal du tee ñu xëy la xam-xam bu ci yàlla mbaa ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaak laajteem yaa audu billahi min asheytaan irrajim bismillahi rahmani irrahim asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki réew mi mbokki àddina bi mbokki seetaan axiru zaman dellu si waat nañu di àndaat ak ci beneen jataay ci axiru zaman di ubbee jataay bi kàddug borom bi di kàddu gunu miin dégg su bakkan rotee mu dugg ci biir yu bari yu sun borom tudd ne nattu la yu muy tege bi mu jeexalee nattu yooyu yépp mu tudd ca wala nabluwannakum ci biir yu bari yum ne nattu la yu may tege ca biir yooyu la tudd wa naq min al amwali anfus benn ci nattu yooyu dal ci réew mi dal ci umma islaam bi yépp ba tax na ñuy ubbee kàddug inna lillahi wa inna ilayhi rajiun muy kàddug borom bi ñu tudd léegi li waral ubbee gi mooy tey lii sunu waxtaan di fàttaliku ku kenn dul fàtteeti di waxtaane ku dugg ci biir histoire di waxtaane ku utul woon wëy waaye ku doon wut ngërmandel yàlla mu jural ko am wëy wu rafet di waxtaane koo xam ne bari na ñu ko réere doonte it bari nañu ko xam di waxtaane koo xam ne boo jàngatee dundam doo gis lu dul ku jël boppam jàppee ko jaamu borom bi ak surgaxeetam xeetam surga xeetam boo koy jàngat dangay gis nit koo xam ni mosul nekk ci intérêt personnel mais lu muy yëkkati pour intérêt ñëpp da ngay gisit nit koo xam ne nii pare naa perte lépp ngir am yàlla ngërmandeem da ngay gisit nit koo xam ne nii wax dëgg ak wax li yàlla wax wutu ci ku ko tàgg ak ku ko mere kooku mooy imaam ba dara Ndaw yi ma tudd nii rekk doy na pour ñu xam dayoom te lu ci nekk mën naa ne du kenn may nettali waaye dama naan maa dund fekkee maa dundandoog moom en ku yàlla may xel ngay xalaat waaye en tant que kuy xeeñtu mbaax yii ma wax nii yépp duma naan dañ ne ma waaye maa ko gis ci moom imaam Alioune Badara ndaw ku tumuranke la ci jamono imaam Alioune Badara Ndao ku la ci jamono bari na kuy woote woo imaam meloone moom bari na kuy woote woo sëriñ daara meloo ne moom bari na kuy woote woo kuy woote ci yàlla meloo ne moom du nag aaday réew mi wala léeg aada aaday rek ku faatu ñu ne nañ wax ci moom lu rafet du loolu du loolu donte bu doon loolu yi jar na ko ndax yeneen ti beenu digal uzkuru mahasina mawtaakum wa kufu an masaawihim su ngeen amee ku faatu lu ngeen xamoon ci moom lu rafet wax leen ko lu ngeen xamoon ci moom ci lu ñaaw nëbbu leen ko alhamdulillah ki ñuy wax ci moom nag lu rafet la ñu xam ci moom te lu ñuy wax ci moom lu nekk wa ma shahidna illa bi ma alim naa la ñuy wax seede wunu lu dul li nu xam ah kàddu gi nu ubbee nag kàddu la gu war di raisonner ci nopp ku nekk ngay baamtu aaye boobu kàddu googu jëm koo def mu nekk sa dundu mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nun nun dunu jaamu kenn kenn moomunu waaye lillahi jaamu yàlla nu nu moom ku nekk ci nun na pose question boppam ne man ndax nangu naa ne jaamu yàlla la ndax nangu naa ne yàllaa ma moom te nga bàyyi xel ne wa inna ilayhi rajiun bis dana dikk ñu delloo la ci yàlla laallahum yarjiun wa ilayhi rajiun am na dellu goo xam ne bi ngay dund nga koy def ñu dellu ci yàlla yow ca wala nudiqannahum min al adabi ladne duna al adabi akbar laallahum yarjiun foofu dellu gi fekk yaa ngi dund la dellu ci yàlla fekk yaa ngi dund sunu borom ne léeg ngeen toggoo ay ñaawteef bu ma xëy wàccee samay duma feebar ñàkk jafe-jafe comme inondation yii nii dañ ca war a delloo ci yàlla donte dañuy coow rek bàyyi mu jàll waaye ay duma lay doon léeg ay duma lay doon léeg ndax balaa lay doon loo xam ne bu wàccee waroon a jëriñ mujj di lor balaa la sunu borom nee na foofu laallahum yarjiun xëy na su ma leen wàccelee ndox moomu sonal leen yàq seeni matériel baare seeni yoon fees seeni kër xëy na ñu dellu ci yàlla tuub wala mu nekk feebar kon dellu ci yàlla foo fekk yaa ngi dund wala dellu ci yàlla ñu delloo la fa fekk nga faatu ku ne ci nun na bàyyi xel ne bis dana jot ñu def la nii nu def imam Alioune Badara Ndao talaata dix-huit heures lañ ko jullee talaata dix-neuf heures lañ ko yoor ci bàmmeelam allahu akbar bi ngay dugal ci bàmmeel maa ngi toog janoog bàmmeel bi nii ñu koy dugal sama xel dem ci wax wax ju aji wax waxoon ne ay waa barzaq ñoonu ëpp sens waa àllaaxiraanu ëpp sens ndax ñi baaxoon ci kaw suuf yépp nga fa ñoom nun ñi ñu baaxale woon ñépp ñu ngi leen di ñàkk sama xel dem ci wax jooju noonu li waaye yomal xiyaam démb am nañu walla talaata am nañu gan gu tedd waaye yomal xiyaam talaata am nañ gan gu laa biir waa yowmal qiyaam talaata am nañ gan gu tabe waa yowmal qiyaam talaata am nañ gan gu dëggu waa yowmal qiyaam talaata am nañ gan gu jub waa yowmal qiyaam talaata am nañu gan gu amoon vision ci luy jëriñ nation luy jëriñ xeetam waaye waa àllaaxira am nañ gan gu bari xam-xam walaaxira am nañ gan gu wattu alquran te jekku woon ko manoon ko bind ko jàng ko ba mokkal ko bind ko jàngal ko ay junni ba nu mokkal ko am nañ gan goo xam ne daaraam ci jamono juróomi téeméeri nit ñu ngi fay yeewoo wala nga ne lu mat loolu cib lim mokkal nañ ci loxoom alquranul karim waaye yowmal qiyaam talaata am nañ gan gu am engagement ci réewam te doo yëg ne intérêt boppam a tax mais pour intérêt ñëpp a tax waaye waa yowmal qiyaam talaata am nañu gan gu dund injustice te muñ ko pare jéggale ko hmm. dañ koy dugal ci bàmmeel ca ngaan alasaan sama xel ci wax jooju noonu leen la dem ma yëg cant yàlla ci ku nekk ci pas-pas bu dëggu delluwu ci ginnaaw ba wuy ji boroomam am na ko am engagement waaye léeg-léeg ñu xupp ko mu dëpp am na ko am engagement waaye léeg ñu xëpp ko mu dëpp Imam Alioune Badara Ndao xupp nañ ko reculewul xëpp nañ ko wala jéem nañ koo xëpp reculewul Hmm, ku jafe la ci jamono léeg nag ci sunu réew dafa am lu ñuy sonal lu tudd par parloo ak ñàkk sincère loolu mooy jur léeg nit nga xool ko rekk jàngat ko lu mu baax baax lu mu jullite jullite lu mu maandu maandu lu mu jub jub te bokkul fi nga bokk rek da nga koy rejeté fi nga bokk xanaa du yàlla nga fay wut bu dee yow yàlla ngay wut fa nga nekk keneen ku nekk feneen di wut yàlla war nga ko mën a supporter feebar boobu nag moom imam Alioune Badara Ndao yàlla muccaloon na ko ci imam ndaw mooy jullit bu gëm li mu gëm xajoo jullit ñëpp bokk na ci li ko may woy wu rafet wii mu am nii mooy réew mu mu tudd Sénégal ngay boroom xam-xam nekk fi di jàngale am mag ñu la jiitu woon mosuñ la dégg ngay yëkkati kàddu gu ñaaw jam mag ñooñu jam leen loolu yombatul ci jamono te loolu moom réussir na ko am na ñeen nat biñ demee ba bëgg ko diaboliser ak sénégalais yi dañ ne gëmul mag ñi wax na ko bi mu nekkee ci kaso bi am na ñoo xam ne nii loolu lañ ko doon jéem a tàppaase gëmul mag ñi wax na ko bi mu génnee ci palaato bi mu toog Walfadjri ne mag ñooñ ñi wax naan nangam bëggoon cee jaare ngir jaxase ma ak sénégalais yi ba ñu dajaloo ca ndakaaru ñuy tànn nangam man lañu tànn naka nga mën a xajoo ku gëmut yàlla taf ko sa bopp mën a rejeter ku gëm yàllaa ko yenentam nga ne sama sëriñ la gëmut moo tax xajoowuma ko lii du feebar aha kay feebar la ci société bi mais nit mën na bañ a gëm sa sëriñ respecté ko loolu rek ay am solo du force ñëpp war a gëm sa sëriñ ndax Sénégal la ñu dëkk ku nekk ak tarixa ba nga aju bu fekkoon daa gëm sa sëriñ bàyyi am ñëw ci sa tariixa kii dane murit la kii ne tiijaan la kii ne xaadir la kii na laayeen la ku nekk daa am koo gëm mais ka nga gëm gëmoo keneen ki moo tax toppoo ko su ma ne gëmoo ko mooy l'essentiel yow kii moo la convaincre nga ànd ak moom ci yàlla aha kay beneen gëm gi nit mën na firee wax ji neneen nu bokkul ak fi may waxee mooy gëm nga ne ku baax la mais nag idéologie bi mu indi yow du adhéré woo ci du yaa ngi adhéré ci beneen mais l'essentiel mooy respecté nga ko même boo adhéré wul ci idéologie bi mu indi ŋàññoo ko waa léegi lan mooy problème nit bëggoon a jafandu ci imaam mii kat dafa gëmul sama sëriñ moo tax nangam ak nangam mais ndax ŋàññi na sa sëriñ yooyu waxu kasaw kasaw la yu yooyu ñennat ndeysaan doon wax waaye ku xam imam man ku ma xam man Makhtar Sarr xam ne du may kuy yëkkatee ka tongtangal kuy saaga magi réew mi <laughs> wala di leen ŋàññi bal ci jëmmarloog ñu mel noon le laa dëkk waaye nag ku ràññee laa de <laughs> akamaa ràññee kii ndax dafa gëmul mag ñi wala da leen di ŋàññi wala nangam wala nangam wala li ngay tuddee gëm mag ñi dafa ànd maanaam dafa adhéré wul ci seen yoon wa ñu nekk waaye moom mi ngi am lu mu gëm respecté ñooñu seen yoon loolu ràññee moo koy maye. moo dama daan séparé tout le temps diggante ibaadu ak wahabi am na koo xam ne ibaadu rahman la noonu la tuddee boppam adhéré ci benn mouvement ne moom dafa am lu muy dund ci diineem nii la gisee ne nii la koy dundee yow ngay jullit am noo gisee ne noonu ngay dundee moom gis-gisam respectel ko ko moom it mu respectel la gis-gisam sa gis-gis ngeen dund ci réew mi ci jàmm loolu pour man du problème problème bi kay mooy ki ne man lii laa gis ba noppi ne ñeneen ñi liñ nekk ñëpp du ñuy jullit ku ci dee safara nga jëm liñ nekk baaxul ñooñu ñooy problème bi ñooñu ñooy poson gi nekk ci biir réew mi léeg-léeg te ñu mel noonu léeg-léeg la ñen doon jaawaleeg imaam Alioune Badara ndaw bal moom da doon xeex sax pas-pas bu mel noonu mooy ndaw ñu ñu jël dugal ci seen bopp kam mag ñi li ñu nekkoon du dëgg nangam ak nangam dégg naa ko ba tàyyi ci discours am muy dénoncer philosophie bu mel noonu ba am na ñenn ci ndaw ñu yarade ko ñooñu mu daan tudd ci pas-pas boobu noonu la ñu ko ci daan attaqué fii ci réew mi yal na yàlla jubal leen te gindi leen waaw léegi imaam moomu ma xam te lu néew laa xam ci moom ñeneen xam ko ndax danga nga dégg rek waxkat bu ne la kii kat nii la mel nangam ci mag ñi ba tax nga bank sa loxo ci moom mukk ba ci bim nekkee ci nattoom yooyu mu nekkoon ñu baree bari li taxoon nee nañ duñ ko defendre mooy dañ leen gëmloo woon ne kii kat dafa contre mag ñi ndeysaan bi nit ki faatoo li Serigne Cheikh di wax ne réew mi réew mu jafe dunde la te neex a dee Sénégal mooy tricherie gu metti gi rek bari na ko naan andaysaan ah, ku baax la woon te biñ ko jàppee jiñ ko terroriste yaa ne woon ku bon la te ba léegi tuuboo ko nag moo tax démb wax naa ko bi ñu robee ba noppi ma wax mbokk yi ma àndal ma ne am na ñu bari ñu war a jéggalu imaam seen digganteeg seen borom ñaanal ko yàlla ndax dañ leen a trompé woon ñu wax ci moom wax yu bon te jotuñ koo tuub ba mu dugg biir suuf maanaam jotuñ ko koo jéggalu ba dugg biir suuf te xam nañ ne lu bon lañ doon wax ci moom ñooñu nag ku ci nekk tey bi mu faatoo imaam ay waliyu bi ku baax ki ku nangam ak ku nangam loolu sunu borom wallahu ala kulli shay'in shahid yàlla fekkee na lépp de te wallahu bi kulli shay'in alim xam na lépp de enregistré na la nga doon wax ci jamono yañ ko téyee ci kaso bi lañ la doon gëmloo yow la nga ca doon wax enregistré na ko denc loo ci tuub xam na loo ci tuubul xam na waaye bi mu demee ba ña nga xam ne ñoo ko dugaloon ci liñ ko dugaloon te caaxaani keselal ko ñoo xëy na kat ñun liñ doon def yëpp caaxaan la bàyyi ko ci la ñenn ne ah kon de dañ koo tooñ waa léegi yow tamit bañ ko tooñee tooñ ñor bi nga yow léegi ndax jotoon nga am occasion jéggalu ko comme déet ku dund nag ci réew mii di Sénégal am loo gëm am foo féete ci diine ji di bay sa waar xajoo sa mbokki jullit ñëpp loolu moo tax ma ne ku tumuranke la ci jamono yombul de nit ku mel ni moom bari na ko jàng yey téere yi di tari aay yi di firi xadiis yi te ba léegi defaroogul imaam danga doon sentir ne jullit la bu defaru loolu nga doon sentir boo jaxasoo ak moom boo jëflante ak moom jullit boo xam ne foo ko fekk mi ngi wax wax juy boole waxuma luñ may nettali de dama dund liggéey yu ñu seq am yuñ ci jëflante jullit boo xam ne nii bu disponible la bu disponible daraja ji ko yàlla jox du ko wane mukk jullit bu fonk kàddoom jullit bu fonk rendez-vous imam bu ngeen joxantee rendez-vous mu wax la heure sàngam laay ñëw moo la fay jiitu mën naa cee cité ñaar nekk nañ ci kuréel bu tudd aar daara ñaari at yiñ mujjee def sunu programme fële ca Tëngéej journée nationale des talibés imam la ñu jël comme sunu yi Mor Jàlloo ngi nii fekkee na yépp moo doon filmer di jël la fay rot ñun bu ñuy ñëw dañuy fekk imam mu nga toog di nu xaar te ma ngay jógee koo ba kaw Kaolack ñun ndakaaru la ñuy jugee man man mi nga xam ne maay coordinateur bi imaam moo may jiitu ca conférence te day jugee ko ba kaw Kaolack ba ci bu mujj bi nii même chose kon ku fonk rendez mu mu dëggalee seede boobu ma seede ci ku fonk kàddoom ku disponible lépp dugg na ci biir loolu ko am nañ la woo téléphone rek dañoo bëggoon nga defal nu waxtaan ci mbirum daara yeeg alquranul karim nga déplacé wu daw téeméeri kilomètres yu teg jiitu fa ñu ah, lan moo ko may ñu tànn ko ci biir borom xam-xam yi ci Sénégal yëpp ah, dañoo gis ni jullit la boo xam ne discours am ku ko déglu man koo jëriñoo waxuma nag kuy par parloo nee naa li ñu sonal loolu la par parloo Maxtaar Sarr daal man bokkul fi ma bokk soxlawuma ko lu mu xam doy na lu mu am doy na am na ñu yor feebar boobu noonu le ba noppi bëgg di ko wàllaate nag maanaam ñoom dañu feebar yëguñ ne dañoo feebar war a faju ji waaye bal dañoo war a wàllaate seen feebar mooy man daal fii laa gëm fii laa aju ku fi bokkul sama yoon ci moom kenn waru waruma ko topp léegi nag keneen ku ci doon ku may waxal loolu lay fexe ba convaincre la gannaaw yow yaa bokk fa ma bokk Sénégal gi yow fa nga bokk sax dañoo ànd cent pour cent ba nga xam ne yow nit bu ñëwee danga nga mën a ànd ak moom ndeem nee nga fu ma bokk rek la war a bokk da ngay bokk ci tariixa tarixa bi bari kër waaw léeg-léeg nit ki sa mbokkum tariixa la waaye kër yi bari nañ léegi nga ne man mënumaa ànd ak moom ndax léegi bokkul sunu kër léegi gis nga acca continuel léegi mu ñëw bokk sa kër seen kër bari néeg léegi nga ne non man néeg bi ma bokk gannaaw bokk fi mënumaa ànd ak moom nga bokk ak moom néeg bokku leen lal waxin la pour ngeen dégg ma léegi nga ne mënoo ànd ak moom ndax bokkuñu lal koy àndal yooyu feebar la yoo xam ne ni nit ku defaroogul yooyu daf koy gàllankoor waaye danga doon yëg na imam Alioune Badara Ndao moom dog na buum yooyu buum yooyu dog na ko mhm. dog na ko te yomb la dog nag ci Sénégal gi yomb la dog maanaam jullit boo xam ne nii bokk nga fi nga bokk mais nga paree doon njëriñal ñëpp pare fu dëgg nekk nga jël ko nangu ko fu mbaax nekk nga jël ko nangu ko fu ñu la soxlaa pour dindi lu bon xoolatoo kuréel xoolatoo foo bokk mais pare nga pour jullit ñëpp kooku la nu ñàkk ñu war cee jànge nag ñun ñi nga xam ne nii ñun ñoo fi des ñu war a jàngee ci dundam imaam Alioune Badara Ndaw bi muy nekk ndaw lañ ko yóbbu mu jàngi alquran jaar na kokki ci ñi jàngee ci loxo góor gi Ahmad Saxiir loola bokk jaar na Jurbel fa la mokkalee bind ñaan beqi bind kaamil am na ñu ne bind na ba ñaari kaamil jaar na yeneeni dëkk ci senegaal ci sàkku xam-xam ba génn senegaal dem Mauritanie yokk fa aliwaam ci concours bu amoon mu gañe concours bi ci wàllu alquran ñu yóbbu ko Mauritanie dem na Arabie Saoudia ci gëstoom gannaaw loolu lépp la ñibbi si Sénégal toog sampu daaraam di jàngale yamu ca mais mu rëdd ay toolam di bay li ñuy wax autonome loolu kuy doomu daara war nga fexe ba am ko maanaam jéem a mënal sa bopp pour nga mën a dugg engagé wu ci yenn yi imam bokk na ci li ko may mu mën a wax dëgg te sóoraale ci kuñ ko ku ko meree ku ko tagg ak luñ ko jox mooy dafa góor góorlu ba dépensam mu koy utal boppam mais yaakaaru ko ci kenn mooy dafa rëdd ay toolam di bay la cay jógee lay dundee bari na ko jàng yey téere yi ndeysaan dëggu na jub na baax na waaye li koy gàllankoor léeg-léeg pour mu jël yenn position yi mooy dafa mënagul boppam dañ ko mënal li ñaan dañ ko gàddul sànqalam te ku la gàddul sax sànqal ni ko wolof waxee gàddul la sa kersa mais imam yaakaarutoon luy ko ci état pour mu dund ak daaraam yaakaarutoon financement buy jógeekoo bitim réew taxaw na yëkkati loxoom ni amul ñenn ñu koy financé ci ay organisme yu nekk bitim réew moo xam ci réewu naar yi la wala feneen du kat lu muy jot muy bàyyeekoo ci état te bari na ñoo xam ne nee nañu sax état amul luy koo ci ñoom waaye am na nag luy koo ci naar yi <laughs> ñu koy dundee ba léeg-léeg bu jël position jotee lu jëm ci naar yi danañ ragal bu dee état leen di dundal bu fekkee yenn position yi jot na pour ñu jël ko danañu ragal bari na nitu diine yoo xam ne nii loolu moo leen tënk. Mhm. bari na koo xam ne xam na ne lii dëgg la mu war a wax ne lii dëgg la waaye nag enveloppe yeeg financement yeeg tracteurs yi bu waree bay yi yiñ ko war a jox looloo tax lenn li mënu ko wax ndax bu ko waxee ñu téye mais li ma li mayoon imaam mu libre ci ay position nga ànd ak moom ak nga bañ a ànd ak moom ci position yi mu jël mais moom libre na mooy jëng yooyu yëpp la dog benn jëng-jëng ko ci amul lu muy ragal a wax ngir bu paree am na luñ koy xañ bañ ko ko jox lan moo ko ko may mooy bi mu sante sampee daaram dafa rëdduy toolam su ko neexoon mu gàddu cartable am di wër àdduna bi di lijjanti ay financement su boobaa loolu dana ko gàllankoor am loo xam ne bu ko waree wax loolu dana tax du ko wax ndax financement bu ñu lijjanti ba mu war a ñëw war a am fu mu jaar am na yenn position yoo xam ne boo ko amee dañ koy bloqué mais lijjantiwul financement yooyu am na loo xam ne nii boo ko waree wax te fekk état moo lay dundal weer wu nekk am na subvention yu mu lay jox wala année bu nekk am na subvention yu mu lay jox wala am na ay hectares yu mu la war a daggal wala tracteur yu mu la war a jox wala jiwu bu la war a jox wala boo amee événement ceebak ak diw gum fa war a indi am na yoo xam ne ñemewoo koo jël ne position ndax da ngay ragal mu dagg Sénégal mhm. waaye fekk demoo ba yegg ci niveau wu wax te jëmm yàlla ji tax booy wax amul looy ragal pour ñu xañ la kook ñu def la ko defaroo ko defaroo boo ko doon déglu doo déglu lu dul kuy wax te yàlla tax doo yëg ne intérêt sàngam wala intérêt sàngam la ci wax wala day wax ngir tooñ ma sàmba wala ngir tooñ ma demba wala gaaral ma sàmba wala gaaral ma demba déedéet su fekkee dafa war a wax ak état amul lu muy wër dafay wax ak état su waree wax ak lobby franc-maçon góor jigéen yeeg tubaab bee seek yàq amul wër-wëral bokk na ci doomu daara yi njëkk a yeewu ci jàng tubaab yeeg seenu caay-caay di ci yee sunu réew nit ñëwee jël sunu koom-koom di yóbbu ñaata yoon la ci def ay conférence liir jàng na tubaab xam na seen bind liir na ko caay-caay ga nekk ci seen téere yi mu yàgg def confirence di ko leeral lan moo ko may loolu mooy ragalul bu leer leeraree loolu dem ñaani visa ambassade bu France wala bu États-Unis ñu xañ ko ko mhm. am na ñoo xam ne tey ñemoo ñu wax dara France ndax dañoo ragal bu ñu demee ñaani visa duñ leen ko may am na ko xam ne visa lay jaamu alladina yaabuduuna visa te si rek la ñuy jaam te jàng nañ kat waaye dëgg ji France caay-caay gu muy def ñemewuñ ko dénoncé ndax ragal bu ñu demee mu xañ leen visa wala États-Unis wala fenn wala fenn yow nga jàng ba noppi di jaamu visa di jaamu ay 4 x di jaamu ay terrain yuñ lay jox am na ci ñoo xam ne nii ponkal lañ yoo xam ne dañuy toog nii di wax ci kaw mais suuf suñ leen daggal ñu nekk toppatoo këyit yi ñu war a def ci seen tur tax na dañuy leeb leebal rek di wër-wëral ya alladina yaabuduuna ay hectare hectare nga xam ne ay hectare lay jaamu ak i papier yu ñu war a jël def ko ci turam mu ngi toppatoo pour ñu defal ko tiitre titre foncier moo tax day ragg gaay yi da leen di raay raayal caay caay gu am yoonam nekku ci ah ba tax na mu dund li mu dund ak dignité ndeysaan faatu na yóbbaale injustice tooñ guñ ko tooñ te réparé wuñ tooñ gi ba mu dugg bàmmeelam sëriñ daara bu nekk Sénégal gi juddoo fii màggee fii jàngee fii sampu kër sampu daara jàngali ndongo ñu mokkal alxuraan jàngal leen sharia ñu sampi daara ñi nekk commercant ñi nekk ci diaspora bi ñi nekk feneen ak feneen kooku ci Sénégal gi nii nii nii nii nii nga xëy bis rek ne ab terroriste la woowoo ko enquête convoqué woo ko nangam nangamoo lu dul xëy rek wàcc këram terroriser njabootam dajji buntu karang-karang jàpp monate yóbbu téye ko ñaari semaine garde à vue di enquête di dem ak a ñëw ba xëy yóbbu ko rëbës jële rëbës yóbbu ndar jële ndar indiwaat rëbës jële rëbës yóbbu Cap Manuel jële Cap Manuel indi camp pénal ñaari at yu teg juróom-ñetti weer deux ans huit mois nga xëy ne ko toppewuñ la dara ndax defoo dara demal nga ñibbi sa kër duñ la jox dara indemnité du dara demal nga ñibbi toog toogati bam neex leen ñu convoqué waat ko mu ñëw ñu taxawal ko mu simi mbaxanaam kilifa ñu ne ko waaw dañ la woowoon pour rek ñii ñu war a àtte nangam ak nangam yow mu bokkoon ci mbir yi waaye yow ñuñ àtte woon ba pare duñu ñu leen àttewaat mu demaat ñibi ak tiitaangeeg njabootam ak ay soppeem yépp mu demaat ñibbi bu yàggul ak lañ ko teg yépp ci kaso ba <laughs> ndeysaan sa yaalamu alladina zalamu ayya munqalabin yanqalibun <laughs> fi imam dem gaa yi danañ fa dem de xoolal juge ba ko doon àtte mi ngi ci biir suuf procureur bis dana jot mu dugg ci biir suuf président ak seeni ministre bis dana jot ñu dugg biir suuf yéen ñëpp ci biir suuf fekk imaam ak ña ko jot jiitu ca biir suuf ngeen taxaw ci kanamu buur bi nga xam ne nii wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji a yawma idin bi jahannam <laughs> yawma idin yatazakkaru l insanu wa anne lahu dikre yawma idin yatadakkaru linsaanu wa annaa lahu dikre yaqulu yaa laytani qaddamtu li xayaati fa yawma idin laa yuazzibu azaabahu ahad wala yuuthiqu wathaaqahu ahad yaa ayatuha nafsu almutma'inna irji'i ila rabbiki raadiyatan mardiya fa duxuli fi ibaadi wa duxuli jannati tribunal bu mag ba atte bu mag bay bés boobu la allahu akbar ñu taxawal procureur taxawal ministre de la justice taxawal président de la république taxawal doyen des juges taxawal garde pénitentiaire yi taxawal directeur kaso yi allahu akbar te ci kanamu buur bu maandu boo xam ne ni du tooñ du tooñ ku nekk rek la nga jëf la lay fay bis boobu dana dikk mbokk yi bis bu mat a bàyyi xel Mm-hmm. ah tabaarakallah mu mel ne julli dafa jotoon ñu doon julli ngir yeggali ñu ngi doon wax rek ne imaam am na ñu mu fekki ñun ñu fi des it danañ ko fekki te bis boobu moom mu yomal xiyaam ku nekk ci nun war na ko waajal te waajalee ko jëf yu rafet alxuraan day wax yowma tub la sarair laa ilaha illa allah yowma tubla sarair yowmal xiyaam mooy bis bi nga xam ne yiñ doon nëbb yëpp yiñ doon nëbbu yëpp day feeñ te fama lahu min quwatin wala nasir yiñ doon nëbbu bu feeñee yàlla bu waree jëflanteeg yow amul doole jooy am wala ku lay dimbale ba te yàlla jëflanti ak yow imaam nag bàyyi woon na xel loolu moo tax liñ ko teg lu muy metti métti boo dégloo discours am doo ci yëgee rek lu dul delloo lépp ci yàlla waaye tooñ nañ ko de bi faatoo ci talaata ji am na ñu ma laaj ci taskatu xibaar yi ma ne leen imaam de faatu na waaye rayaale na conscience yu bari am na ñoo xam ne nii faatu nañ te ñu ngi dund ci faatu imaam gi ndax danañ yëg tooñ guñ ko tooñ te tuuba luñ ko tooñee ba imaam faatu ñooñu danañ nekk néew yu dox ci kaw suuf ba keroog ñu koy fekki jarul ñu ci jaaraat li mu dund ci kaso bi wax nga wax na ko <coughs> yéen ñëpp ngeen dégg ko <laughs> ñu bari yëguñu woon sax ndax ñu bari daawuñu topp xam nga léeg-léeg li sëriñ Cheikh naan réew mu neex a dundee la te jafee faatoo wala réew mu neex a faatoo la ca jafe dundee moo ci nekk léeg-léeg duñ bàyyi xel yi ngay wax ak yi nga dund ba ba nga faatoo nag ci lañ ñaan ànday ah, saan ah moom ndekete tax na ñu bari vidéo mii mii nan yi mu doon nettalee li mu doon daj ci kaso bi bi mu faatoo lañ ko soog di bàyyi xel mais torturé nañ ko mettital nañ ko bundu nañ ko su ko yàlla dimbale wutoon ci kaso bi la bakkanam di des waaye daf mel ne yàlla namoon mu génn ci kaso bi nettali sénégalais yi lim dund ci kaso bi soog di wuy ji borom waaw ndax jàpp nit di wër lu mu def war ko àtte dafa war laaj nga koy bundu dafa war a laaj nga koy dugal ci néeg yoo xam ne tàngooru degare yi néeg ba jural na ko day jël yéreem tooyal ba mu tooy solaat yére bi wow juróomi yoon ci bis bi cinq fois te nee na xelam a ko jox bi mu duggee camp ci néeg biñ ko tëjoon tàngoor wi neena na xelam dem ci yenent bi bi muy sukuraat sukuraat su metti mu jël ndox ñu jël mbaaj ji tooyal ko di ko nëpp ci yaram bi nee na ko nee ci la ko xelam joxe ne pourquoi mu tooyal kaalaam tooyal mbaxanaam tooyal yéreem nee na boobu tàngoor mi ngi yëg tàngoor woo xam ne bopp bi di métti benn xeetu metti ci la jëlee mbaxanaam tooyal teg ci bopp bi jël kaalaam tooyal teg ci bopp bi mujj gi jël ay yéreem simmi tooyal solaat yére yi waaye nee na juróomi yoon yére yi day wow ci biir kaso bi ci biir néeg buñ ko dugal te amul jant bu ko tiim luñ jublu woon ci loolu te moom mi ko wax gëm naa wax ji man gëm naa ne loolu lañ ko def am na keneen ku ko doon wax duma ko gëm xëy na waaye moom gëm naa wax ji ndax gëm naa ne fenul c'est important nit dem ba yegg ci benn degré boo waxee kuy tàqamti ku yàlla yëg ne li nga wax dëgg la ay néeg yu am xeet yu bon lu ci nekk mu dund ko subhaanallah ku wattu téere yàlla bi subhaanallah ku ko wattuloo ñu bari subhaanallah kuy taxaw ci kanamu min bari naan ihdina siraatal mustaqim ku orienté ñu bari ñu waroon a wàcc yoon kooku nga xëy jël ko jàpp ko tuumaal ko di wëri tuuma yamoo ca nga jàppee ko benn vagabond di ko torturer <laughs> ba yowmal xiyaam subhaanallah subhaanallah ay ñañ santoon jëf jaag ña ko sant wa ilallahi tajtamiu alxusum ki ñu tooñoon ak ka tooñoon ñëpp ëllëg ci kanamu yàlla la ñuy taxaw jarul gëm na ko gëmu ko mën nañ wax fi ñu naan ak ah, gaa yi gëmuñu yàlla waaye ku faatu ba dugg bàmmeel taxaw ci kanamu yàlla ëllëg danga xam gëm ak ñàkk gëm ne foofu kontewul mhm. mawasinul xist rek la yàllay teg bëskilu maandu bi rek lay teg suñ tribunal yi ñuy def bëskil boobu di lang yomal am la bëskil bu équilibre bi nekk nag ba tax na loolu léeg mën na ragalloo ku yàlla taxutoon a jóg waaye moom mi nga xam ne yàllaa ko taxoon a jóg biñ ko tegee lool bi mu génnee wàññiwul virgil ci engagement ak discours am bu changé déedéet bal dafa gën a mën a am courage di wax dëgg ak di ci woote mooy wane ne fekk na moom laataa muy dugg ca bërëb ba defaru na bërëb ba yàqu mu génn wéy di defaru di defare c'est important ndax am na koo xam ne nii bu dundee yu mel noonu pare mbokk yi wër koog xarit am di jàmmuy déet du nii moytul nangam nangam sunu genre gu xeebu gii sax léeg leen nit rëccale wax la ko ah def leen ndànk de ah moytu leen de ah gars yi dañoo saay saay de ah nangam de fekk yow ñoom moom gars yi muy sóor yow yàlla ngay sóor sóoroo gaa yi léeg nit di la tiital fekk yow yow maanaam yow sa borom nga tiit sa digganteek sa borom mais pas nit te kuy woote ci yàlla wala nga jéem a avancer benn niveau ci yàlla fekk demoo ba yegg ci yow détail yooyu noonu la faaleetoo ko mais doo wax da ngay noppi mais da nga war a yegg ci niveau boo xam ne da ngay xam ne ñaara fi nekk léegi waa d'accord ah attention moytu léegi kim naan la moytul ñaar la man ci yow jël la tëj ci kaso bi wala mu ray la ñu suul la ci bàmmeel mais yomal xiyaam taxaw ci yow nga toog xaal ko escale yomal xiyaam jot yéen ñaar ngeen taxaw ci kanamu yàlla léegi nit ki lan lay ragal ci àdduna benn intérêt mbubb mu doon sol soxna sum amoon doom yum amoon oto bu mu doon dawal wala nangam ak nangam léegi loolu moo tax après même bu dëgg taxawee waroo défendre dëgg waroo wax dëgg danga nga war a dund ci fen wara dund ci caaxaan ngir lan sàmm sa bakkan laa hawla wala quwwata illa billah laa ilaha illa allah loolu noonu la kenn xamul nu mu tudd ba tax na léeg nit ragal nit te waroon a ragal yàlla wa taxsha naasa wallahu ahqu an taxsha nit nga war a ragal wala yàlla nga war a ragal yàlla nee na man nga war a ragal baa nga ragal nit waaye boo demee bay jaamu sa bakkan nag su boobaa nag waa kay afaraayta man ittaxasa ilaahahu hawaahu su fekkee yow sa bànneexu bakkan mi ngay jaamu nag léegi sa bakkan mi moom ah da ngay ragal lu ko waa kay lu ndax bakkan mi ngay jaamu léegi jaamootoo yàlla léegi bakkan bi ngay sàmm ah dañ lay ray de ah dañ lay kar kar de kii gars yi dañoo doy wax lay posone de ah, gars yi nangam nangam nañu ray nañu posone nañu tëj nañu nangam ku ci nekk dangay de man lam yamut bi say fi maata bi xayrihi dee moom day am ku sa àpp jot nga dem lu lay yóbbu nag yàllaa xam lu nekk mën na la yóbbu ku jaasi rayut leneen lan dana la rey lii rayaatee wuute waaye wal mawtu waaxidu dee moom genn la imaam xamoon na loolu yéegoon na moom ci niveau ragalul kaso ragalul ku ko tëj ragalul nangam wax na ko ci discours am ñu tëjoon ko kaso mu faatoo fa ak mu genn kaso faatu mu faatu tey mu faatu suba la yamale kay ku defaru noonu lay mel fekk yeggoo foofu nag qaala allaahu qaala rasulu wàcc na la yow wàcc na la rawatina jamono ji ñu toll nii bu fekkee yaw yaa ngi war a yëkkati aaya am looy ragal wala koy ragal am looy sedd séddoo dara lu dul ragal kasoog bàmmeel wala iyaadu billah jaratul ngay wax ay ndax aay yi nag heure boo ko yëkkatee rek am fu mu yegg am ci ñu mu yegg Sëriñ Tuubaa taxoon ñu génne ko réew mi màggal gaa ngi ñëw ñu koy fàttaliku lan moo tax tey mu am woy bi mu am mooy jaamutoon bakkanam yàlla la doon jaamu Cheikh Al Hadj li tax mu am woy wu rëy bi mu am mais jaamu wutoon bakkanam yàlla la doon jaamu ngërmaneel yàlla la doon wut bi ñuy dund lu nekk fexeel nañ leen ko tubaab yi convoqué nañ ñii ñii ñu jàpp tëj ñii ñu tas seeni daara ñii ñu rey seeni ndongo yenn sëñ daara yi seen ndongo lañ leen seen daara lañ leen rayee ñii ñu génne réew mi mais loolu moo tax ñun ñu jot ci lu ñu jot ñun mais bu ñu nekkoon ñoom ay ragal toog ku nekk di sàmm sa intérêt bopp mais diine ji du yegg si fi mu yegg si ñun ñoo dem ba jot ci nag ku nekk ragal toog di sàmm sa intérêt bopp jàpp nañ ne benn ti benn te war a wax ku ciy wax ñëpp tiital la waaw am na position yu imam Alioune Badara ndaw jël keneen ak keneen jël ko am na ñu ci gënoon a yay ci réew mi ci jël ko te jëlunu ko jëlunu ko léeg-léeg ñu ne neexu la wax ak ay neex a wax nay dëgg rek am na ñu gënoon a yey pour ñu jël yenn position mais ñu ci bari ragal dong nga tax jëluñu position yenn yi 2018 damay rappelé wu bi ñu yëkkatee mbirum collectif non la franc-maçonnerie à l'homosexualité koo wax ñu ne la yow gars yi ñooñu sëñ bi yéen li ngeen dugg ndax xam ngeen ko nit day wax ak ndeysaan ngay kaf di ree fekk yow sax xel a ngi xalaat lu sori ndeysaan te yaa ngi ree rek janoog moom <laughs> maanaam yow ki ngay waxal yow li muy def yow yaa ko waroon a def yow desaa yow yaa ko ëpp xam-xam ëpp koy at ëpp ko nangam yow nga waroon a ñëw ne man maa ngi nii heure boo ma soxlaa disponible naa li ngeen nekk nun la nangam nga ñëw naan ko yow moytul attention gars yi dañoo bari doole ñii subhanallah ñan ñoo bari doole koo xam ne nii day gëmmentu di nelaw kuy feebar di faju kuy xëy dee ñu sàng ko suul kooku moom nga ragal ba kooku bu taxawee pour yàq diine doo taxaw dénoncé ko ndax boo ko dénoncé da lay ray yow nga dee yow ngay jaamu sa bakkan hmm. Cheikh Alhaji Abdoul Aziz pas-pas bi mu amoon di dénoncé franc-maçon di dénoncé yu bon yi di critiquer état ak nangam ak nangam fekk na boobu jaamul bakkanam waaw genre imam ndaw gi ndonoy ñooñu lañ ay ndonoy Cheikh Alhaji Abdoul Aziz lañu waaw ah, ndonoy mag ñoo ñu nekkoon fi lanu imaam ndaw da ko doon jàngat di yëg ne ndono mag ñi la téye nii ci loxoom boo demee biti kawlak benn dëkk keroog ñun bi ñuy dem moor a ngi nii ñoo ànd bi ñu dem suñu mbokk yële seen daara lakkoon ca Casamance ñu dajale woon ndimbal aar daara doon leen ko yóbbul bi ñu def tournée aar daara bi Kaolack ci moom lañ njëkkee mais dëkk biñ ko fekk boo demee imaam gis ngeen bi mu faatoo ron garab googu mu toog noonu moor mi moo ko photo photo boobu ñu toogandoo fa moom mais àll ndànd foy foy daanaka ay garab ngay gis mu tabax benn jàkkaam daara ji nekk fee benn benn ti néeg sa bët li muy xool yëpp àll la mu dem nangoo dëkk foofu <laughs> kay hakaza la mag ña doon def lu indi njaarnde lu indi gosaas lu indi nangam lu indi nangam lu indi daaru quddus daaru mu'ti daaru nangam daaru nangam <clears throat> mag ñi dañoon sanc dëkk yooyu di ko dundal samp fa daara rëddi tool bënn teen la ilaha illa di defar doomu jullit ñi imam ndaw loolu moo nekkoon mission boobu la amoon imam ndaw bu ko neexoon muy dawal ci 4 x yi gën a neex ci 4 x yi mais imam benn Mercedes bu la yàlla xam doy na la doon dawal soo ko gisee xam ne ci mécanicien yi la dëkk sol gu ràññee ko sax ñaareel doo gis mu sol ko sol gu yamambaay lay sol jël kaalaam googu tegoo mais ku ku bëgg yàlla waxuma kuy parparloo ku seytaane nekk ci xol bi mais danga koy sentir ne kii kat mi ngi wut yàlla kii mi ngi liggéeyal yàlla ndax bu ko neexoon mu jege mbir yi fi mu nooyee nag am na ñu mel ni moom léeg sax ñuy woote woon dañuy dund su naay mel ni moom ñu ngi fër-fëri ci réewu naar yi dem di yalwaan lu ñu dundee di jaamu ay financement naar te buñ delsee fii di wane ne ñoom ñooy fanaane aras di dellu si waat mais moom seexlu woon na loolu te bu ko neexoon mu bokk ci ñooñu gënuñ ko dégg arab gënuñ ko mën a wax ak naar yi ko mën a lijjanti financement mais seexlu na ko ma nga dem rëdd toolam di bay di dundee di yar doomu julli ñi di def ñoom téere bi jàkka jaa ngi daara jaa tool yaa ngi mais mag ñi lii lañ sampé woon senegal jaju ba jàng julli bay moo tax man nga gàddu ndonoy mag ñi ta santoo sant mag ñi pas-pas la ndonoy mag ñi pas-pas la du sant mën nga sant nu ne gàddu seen ndonoy dem aw pas-pas la rek ba tax na nun ñi fi des nañ ci jànge rek waaye léeg bu amee ku mel ne imam ndaw faatu sax ñëpp daal ah gis nga gars yi dañoo bari doole de gars dañ lay rey gars nangam ci wax yu xeebu yooyu léegi après daal wax jooju li muy tekki daal mooy noo yéen ñëpp bàyyi leen léegi daal pom yi na law caaxaani law bàyyi leen franc-maçon yi bàyyi góor jigéen yi bàyyi tout yooyu bu leen ci dugg ndax léegi ku ci dugg dangay ngay dee ah léegi ku ci duggul moom doo dee daal ñeneen ñi dee ci luñ nekkoon imam ndaw bu biñ koy rob ñaataa faatu ñooñu ci lan lañ nekkoon talaata jiñ ko robeeg tey ñaataa faato ñu rob leen ñooñu ci lan lañ nekkoon léegi daal kenn du faatu ku dul ku nekk ci dëgg ah bu doon loolu la sax ñu mën a wax ne kon kay jarul kenn di nekk ci dëgg ndax ñu nekk ci dëgg ak di ko défendre di xeex yu bon yi ñooy faatu loolu tappale la nañu nekk ay jaamu yàlla bañ doon ay jaamu xaalis ak yu xeebu yooyu te ñu jéem a ut autonome maanaam kuy doomu daara ku nekk jéem a la fexe sa ba sa dépense doo ko yaakaaree nit ndax ma indakum yanfadu wa ma inda allahi baaqin mais bu fekkee ne yow yaa ngi wax te sa dépense suba mi ngi am ci nit koo ko yaakaar mais sëñ bi da ngay falsifier ay yàlla yi waaye moom gàcce ngaalaama gàcce ngaalaama falsifié wul aaya falsifié wul xadis mi ngi sàmm pas-pasam ba wuy ji yàlla réussir na mission jeex na am na way wudul fay ba yowmal xiyaam la ibnu duray di wax ne innama wa xadithum baadahu fa kun xadisan xasanan liman waa mu ne ku nekk boo faatoo doon ku ñuy wax ci yow danga doon histoire mu ne fexeel defar sa histoire balaa ngaa faatu imaam Ndaw ñi ko tegoon liñ ko teg am woy wu bon bu ñaaw bu histoire di nettali waaye moom kenn du ko tudd ñu ne kat lam fi defoon ci lu bon ak lam fi defoon ci lu ñaaw heure buñ ko tuddee ñu ne jàmbaar la woon jullit la woon tegoon nañ koy natt muñ na ko nangam ak nangam waa kay ibnu Duraydu mu ne fakkun hadisan hasanan liman waa fexeel ba doon wéy wu rafet ci ñi la wuutu mu ne ku fi jug rek ñu wéy la mu ne yow bi ngay dund nag ngay liggéey sa wéy ba mu doon woy wu rafet mag ñi ngi fi tudd ñëpp Cheikhul Hadj Abdoul Aziz la 14 bi lañ koy fàttaliku la 14 septembre bi bi muy dund lu mu déggut amut dem nañ ba korte ko korte ku mel ni Cheikhul Hadj Abdoul Aziz ak mbaaxam ak korte nañ ko sànni ko korte bam naan waqad ra waqad ramani aadi bil korte yaa rabbi najjini min sarri korte ne samay noon jéem nañ lu ne ci man ba fiñ mujj mooy sàr sànni ma korte mu ne yow yàlla man Abdul Aziz maa ngi lay ñaan nga muñal nga musal ma ci ayu kort ku mën a comprendre loolu dégg ko pour wane ne ku nekk ci li nga war a nekk lu nekk danañ ko jéem ci yow bu daan wax am na ñoo xam ne dañuy fay rajo bi buñ ne Abdul Aziz say wax ci rajo Sénégal fay nañ ko mais lam la ko jural ba léegi ñu koy tudd di barkeelu di ko naan iskay ndax yàlla la tegoon ci kanamam du nit ñi yàlla nag après mooy jël nañu dugal leen ci sa xol xoolal imaam ndaw li ko yàlla may benn vingt quatre heures ñu ne dañ koy dajaleel xaalis ñu dajaleel ko ñaar fukki million yu teg ak alal ak ni sa saxee ci nga teg ne loolu hasard la hmm, sénégalais yëg nañ tooñ giñ ko tooñ répété tooñ gi mu métti leen ñu téye ko ba bu fekkee ñoom ci ñoom dong la des dafa tëdd feebar war a jug xaalis a koy yëkkati bu buñ laajee milliards ñu génnee ko pour mu jug ndax dañoo yëg ne yàlla lay liggéeyal kenn forcé wul kenn ne ko buñ koy defal benn kaño da ngay joxe sa xaalis mais man biñ ko annoncé li ma woo ci nin mu orienté leen kenn xamul lu mu toll ñenn ñi sax dañoo bal ne dañ doon jaar ci man ma jox leen numéro Ferreira woo leen ko yónnee leen ko nga yëg ne rek ku ci nekk mi ngi defee yéene pour bu fekkoon xaalis dong ngay tax mu jóg fa mu tëdd jóg na waaye boobu àpp bi jot na wala yuaxir allahu nafsan isa jaa ajaluha wallahu xabirun bi ma taamalu boobu àpp bi jot na faaw mu dem hmm. mbokk yi mm, buñ ko toppee day gudd rek waaye l'essentiel mooy ñu xam ne daal ñàkk nañ jàmbaar te ñu jéem a dooni jàmbaar nag waaw nañ jéem a doom dooni jàmbaar bañ ko tudd naan iskay te ñu jéem a jàngataat dundam yëg ne rek li am solo mooy nga nekk ci dëgg nekk ci njub ku nekk doonal la nga doon bokkal fa nga bokk Sénégal bindoo noonu ku nekk am na fu mu aju man mi wax am na fu ma aju yow mi may seetaan am na foo aju mais gannaaw biñ ajoo foofu nag ba noppi nag nañu yëg ne ay banqaas lañu ñu ngoy mais lii dàtt bi mooy kalimatu laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah aka foor kàddu googu la imaam yëgoon ne moonu boole ba dunnu wax jamaam borom tubaa waxoon wala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allahu laa ilaha illa ndaw wax ju rëy bu leen noonu bu leen def noon ku ngeen gis gémmiñam di génnee baatu laa ilaha illa bu leen ko def noon sa xolay defaru pour nga mën a dégg wax ji dund ko de mën nga ko dégg rek ne iskay rek jàll <laughs> waaye pour nga dund bul def noon kuy wax laa ilaha illa allah même bu ngeen wutee xalaat même bu ngeen wuutee gis-gis même bu ngeen nekk bokkul fu ngeen bokk mën ngeen wuutee xalaat ñàkk déggoo mais bul ko def noonu de imam ndaw da doon yëg ne def doon dundu du ma noonu jullit loolu nga yëg ci moom bu ko Ligue des imams yëkkatee mu jóg bu ko ànd sàmm jikko yi yëkkatee mu jóg bu ko aar daara yëkkatee mu jóg buñ ne dem Touba mu jóg gis nga ndaje mu mujj bi nga xam ne ni association islamique yeeg imam yi lañ dajale ca Touba ma nga fa woon feneen fuñ ko woo fudul foofu yi invité ko fa mu ñëw jóg ndax lan amul amul amul jéng yu ko jéng ci fii la bokk fii la yem ba du jëflante keneen ndax lan mi ngi doon dund kuy wax laa ilaha illallah sama mbokk la innamal muminuuna ixwatun dañ koy jàng rek mais ndax ñu ngi koy dund fa aslihu bayna ko léeg-léeg dañuy tari kaamil yi léeg-léeg ñu ne wàcc nañ junni kaamil ak ñeent fukk ak nangam <laughs> wallaay li ëpp solo du wàcce kaamil yu bari mais fexe dund ñaari aaye ci alquran te mu sell moo gën wàcce mille kaamil yoo dundul xaraf te téere bi nag ñun lay waxal de téere bi wàcce wuñ ko pour ñu koy jàngal suñu néew yi kese wala di ko sangoo naan dañuy musloo ubbeekaay wala di ko bindal suñu doom yi guddi taxul téere bi wàcc de inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam yahdi bi pour defar nit la alif lam mim zalika alkitabu rayba fihi lan hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin pour defar nit la waaw yow nga jàng téere bi ba mokkal ko bind ko téere bi yaa ngi koy jàng suba ngoon guddeeg bëccëg nga jàng téere bi bu demee da wàccee nga wàccee téere bi mais ba léegi yow jubago defarogo sa xol bi amul kiñaan gu ci dañ rëy daña gu ci bëgg daraja siis xat mboolem ayibu bakkan yi mi ngi installé wu ci yow te yow nee nga mokkal nga téere bi laa ilaha illa allah ka masalil ximeeri yaxmilu asfara ka masalil ximeeri yaxmilu asfaara waaw loolu yàlla ŋàññe ñëwoon banu israil ñi jël tawraata duñu ko jëfee suñ borom ne dañoo mel ne mbaam sëf mbaam mu sëfi téere mbaam mu sëfi bagage mbaam mu sëf ndox mbaam mu sëf nàngam du ko jëriñ dara lu dul diisaay ba dong mbokk yi nañu jéema doon ay nit ñu jullite wallahi mënuñoo doon murit tiijaan xaadir nangam ibaadu te doonu ñu jullit ba noppi jullitay tungoom yépp mhm. jullit <laughs> mooy tungoom lépp su sañ jullit dëggoo ah man nga am ko wuuteel gis-gis waaye nag danga nga bëgg képp ku baax waay yow jullit bu mante bëgg ku baax yow ku baax da lay déranger lan moo tax mooy bokkunu fu nu aju d'accord feebar bi la topp ci bokkum ak diw tariixa moo lay topp ba boo bokkee moom tariixa li ma waxoo léegi bokku leen kër bokku leen néeg bokku te feebar boobu moo la waat ba tey biñ na tariixa kii bokk ci tariixa nangam léegi tariixa bu nekk am na kër ñun ñu ngi bokk ci waa kër nangam ci tariixa sàngam léegi nga dugg ca biir kër ga ami néeg maam mi fi bàyyi nekkoon maam bàyyi na fii doom doom bàyyi fii sët léegi doom ya am nañu kër sët ya am nañu kër sëtaat ya am nañu kër léegi yow kañ ngay doon koo xam ne nii da nga jubootee kenn ndax léegi yow fi nga aju rek ngay xool te feebar la ci Sénégal feebar la te da ngay jàngatee ci dunu imaam ne feebar yooyu la doon jéem a faj mooy nun julli ñi nañ nekk benn nañu dajaloo moom li doon occupation am mooy ñii di yàq lislaam ñun jullit ñi nañ booloo pour l'islam bañ a yàqu mooy tout le temps lobby franc-maçon yi góor jigéen yi yooyu di songu lislaam la concentré wu moom mais pas ñun jullit ñi détail yu sew sewaan yi kii buy julli day teg loxo ba ca dënd ba kii da koy wàccee kii day nangam kii buy julli moom day fexe ba ñi julliwul ñëw di julli si moom loolu nga doon yëg ne moom lay concentré wu ñi julliwul di julli waaye jullit boo xam ne ni kii buy wax fatiha bi day wax alhamdulillah kii bismillahi rahmaani rahim dundam gépp mi ngi ko jeexal ci diggante kii buy julli day wax bismillahi rahmaani rahim ak kii alhamdulilah lay wax moom daal waaraateem dundam gépp ci loolu la ko jeexal les détails subhaanallahi alazim wa bihamdi ah ñu ngi ñaan yàlla na ko yàlla yërëm jéggal ko yàlla na àjjana di këram yal na dem nekk noflaayam ah tabaarakallah fekk na buur bu tedd bu baax bu bari yërmande yàlla na ko yërëm te jéggal ko ah ñun ñu fi bàyyi tamit ah yàlla tënkuñu ci njub te musal nu ci seytaane ak pexeem te nag ñu bañ di wax rek ay njàngaleem rombu dem mee ñu jéem a seet nag lu ñu jéem a jël jël ci dundam jéem ko def bind waaw ndax ku nekk boo yeewoo dangaa war di jël bind di ko nafar di ko jéem a pratique subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin jërë ngeen jëf ci seetaan bi wa salaam. xeex tànk bu gudd oolee kalal du tee ñu xëy xam-xam bu rëy yàlla mbaa ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaak laaj teem yaam